jot kilifa yu tedd yi ñi nga xam ne ñoom lañ ngir xam ne nag seddi fi waxtu yu toll ak fi àdduna toll moo tax ñu tënk ko rek gàttal ko seet li ñàkk rek ci ñi mënta ñàkk teew li mënta ñàkk waxtaanee ñu waxtaane ko kon gouverneur ñu ngi lay bu baax a baax di nuyu mboolem ñi fi teew ñëpp di sànni kàddu yu gàtt rek ci niñ ko daan defee at mu jot ngir xam ne bis bi ñuy dëngal di bisub Serigne bis la boo xam ne amul lu ko ëpp ci kaw suuf mooy bis boo xam ne ndigalu lu Touba la. loo xam ne moo ko santaane woon ne ko ñëpp sant la yàlla muy bis boo xam ne itam lépp lu ñu am ñun ñu yaakaar Serigne Touba bis bi tax ñu am ko kon bis bi mooy suñu lépp kon amul dara lu ñu gën a fonk ci bis bi kon nag ñu ñaan rek ci barkeb Serigne Touba mi nga xam ne moo ko santaane woon te njabootam di fi nekk ñëpp daa ko def ba agsi ci Cheikh.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 fi li am ci jàngoro ji am muy loo xam ne suñu borom bi ko wàcc moo xam li tax mu wàcc ko ci kaw suuf te saa su ko jeexalee mu jeex ndegam jeexalu ko nekkoon li ci war doomu aadama yi war ci nit ñi ci teg ñi nga xam ne ñoom la suñu boroom dénk loolu muy ñu yor wàllu kër doktoor liñ ci santaane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 yàlla nañu ko suñ borom defal ñoo xam ne rek ñun yaakaar lañ am ak la jiitu ci nag muy ndigalu Serigne Touba ndax dañuy wax ne euh, ñaar rekk fi nekk xel ak sariya waaye itam science fi nekk ak ngëm-ngëm ngëm-ngëm moom dafa dëgër ci noomu aadama te bu sa ngëm dëggoo rek loo yuutu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 Serigne Saliou Mbacké daana wax ne yaakaar ju tas miin yoonu ko Serigne Touba kon nañ xam ne yaakaar ji taalibe yi am ak yaakaar jullit yëpp am di dundal si ndigalu Serigne Touba la ñëpp day ñëw jàmm ba delluwaat ak jàmm te jàmm rek xew ni ñu ko yàlla defaloon daaw am nañ yaqin ci ne suñu doom danañu ko defal lu ëpp loolu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi